am na daal ay nag daal ticket yoo xam ne dinañ ko nag daal di teel a joxe su ko defee nag daal ñi nga xam ne ñoo di rek daal askan mi daal duñ nag xaar ba bés bi nga xam ne fa la ñoo dem ñu nag mun a am li nga xam ne moo daal ticket ne nag daal lii nag lañ nag daal di jagle li nga xam ne moo di askan wi dinañ ko waxtaan si biir xibaar yi ab délégation di ab gàngoor goo xam ne nag ñoom ñoom lañ xamee si rek Global Fund ñoom nag ñu ngi woon fii si biir li nga xam ne mu daal réew mi mu di nag ab kuréel goo xam ne nag ñooy faral di nag jàppale réewu Gambie si rek daal banxaas yi nga xam ne ñooy nag saytu nag wérgu yarami li nga xam ne moo askan wi ñoom kuréel googu nag daal kilifa yi nga xam ne ñu nga kuréel googu si seen nemmeeku boo xam ne ñu ngi koy amal fii si biir réew mi dem nañ fi ñu xamee si Bansang Hospital keroog li nga xam ne mu daal samedi dem nag nemmeeku ji li nga xam ne moom nag lañ nag jota dugal si li nga xam ne moo di béréb bu fajukaay boobu dinañ koy waxee si biir xibaar yi gannaaw juróom benn fan yoo xam ne ñu ngi nekkoon foofu si rek diwaanu Medina li nga xam ne moo di uja ci nga xam ne ñoo soxee ko fii si biir réew li nga xam ne moo di daal Gambia keroog àjjuma daal utale nañ beneen dëkk bu sell bi di rek daal Makka foofu sax daal biñ fa nag daal di demee daal dinañ nag daal amal seen nag daal tawaaf nag bu njëkk si li nga xam ne moo di Kaaba wi amal nañ tamit eh, li nga xam ne moo di daal eh, daw boo xam ne daw nañ ko diggante Safa ak Marwa dinañ ko yaatal si biir xibaar yi ak yeneen gannaaw bàkk wi ñu daal di yaatal talaata la fukki fan yi ak benn si weeru juun atum 2024 di atum ñaari junne yi ñaar fukki ak ñeneent ñu dalal leen si seen jotaay bu mag bii di jotaayu xibaar yi Ibrahim Khalil Gueye moo leen di yaatalal xibaar yi ñu yaatal xibaar yi waajtaay bi nga xam ne ñu ngi koy waajal li nga xam ne moo di nag bés bu màgg boobu di idul adha ñu gën ko miné si rak daal tobaski loolu waral na compagnie wala këri liggéeyukaay bi ñu xamee si Gambia Transport Service Company yore nag li nga xam ne moo di ay waruwaay ñoom nag daal xam nañ ne daal pour rek yombalal askan wi nga xam ne daal ñoo bëgg a dem julli ji seen ay dëkki cosaan daal dinañ leen ko yombalal bi yoon maanaam dinañ nag teel a joxe li nga xam ne moo di ay euh, ñi nga xam ne ñoo bëgg jëfandikoo boos yi nga xam ne ñu ngi foofu si ji GTSC pour daal fexe ñu nag daal euh, jox leen ay ticket laata bés bi nga xam ne ñoom askani si lañ nag daal di bëgg a jël li nga xam ne moo di daal euh, boos yooyu ñoom Gambia Transport Service Company rek wax nañ ni lii nag dañ ko def nag daal pour rek fexe nag li nga xam ne moo di daal askan wi nag daal bañ a nekk si li nga xam ne moo di fitna wala daal li nga xam ne moo di daal euh, jafe-jafe bett na ki ñu xamee si Modou Lamine Fati nga xam ne moom mooy GTS si marketing manager moom nag daal dina wane. lii waral nag daal ñu def jëf ci nag mooy fexe nag yombalal askan wi nga xam ne ñooy jëfandikoo seen boos yi su ko defee nag daal ñu nag yombalal leen seen nag demaka ak dikk ñu bañ nag nekk si li nga xam ne moo di ab fitna wala li nga xam ne moo di daal euh, coono ba na sax wax na ne pour rek daal yombal mbir mi sax daal daanaka nag daal am na daal ay nag euh, ticket yoo xam ne daal dinañ ko jagleel askan wi bokk na si daal ñetti façon yi ticket am na boo xam ne euh, couleur bu weex la am na boo xam ne boobu sax couleur bu weex bi xam ne ñooy dem bésu alxames euh, lañ koy nag daal di jox am na beneen ticket boo xam ne couleur bu nag daal nete la boobu ñi nga xam ne ñoo bugg a dem bésu àjjuma daal lañ koy nag daal di jagleel ak tamit ab euh, beneen couleur boo xam ne bu nag werta la mu di green kola boobu nag ñi nga xam ne ñooy war a dem samedi wala wala ñooy war a dem julli ji samedi ñooñu nag lañ koy nag daal di jagleel wax nañ wax nañ daal lii yëpp nag daal dañ koo def nag daal pour daal gis ne askan wi nag daal euh, duñ nak daal di dajaloo si rek daal béréb boobu nga xam ne fa la ñu a jënd jëlee li nga xam ne moo di daal euh, seen i nag boosis yooyu wala daal seen i yooyu na daal lii nag dañ ko def euh, pour daal noppal li nga xam ne moo di daal askan wi moo Modou Lamine faati mu nag daal di continuer tamit nag daal di nag wax ne daal li nga xam ne moo di daal seen nag boos yi nag daal daanaka dinañ nag daal eh, jaar si béréb yu nag yu bëree bari bokk na si fi ñu xamee si rek ñaani kunting dinañ fa nag daal jaar jëfandikoo mbedd mi xame xamee si Transgambia Bridge eh, dinañ tamit dem diwaanu Farafeñe fi ñu xamee si kunting eh, Fodé Kunda ak daal diwaanu Basse Bansang Mankamang Kunda Janjang Bure Jaaro Soma. ni eh, ak wax na ni yëpp nag daal seen i ay boos nag dinañ fa nag daal àgg si ñi nga xam ne ñoo bëgg a jëfandikoo boos si nga xam ne daal moo di boos yi si nga xam ne mooy boos yi GTSC yi wala war war war waruwaay yooyu nga xam ne GTSC nag daal ñoo ko nag daal di moom alaaji Sima nga xam ne moom ab eh, client la wala bokkal na nga xam ne ñooy war a jëfandikoo boos yi mu ne li nga xam ne moo di nag daal eh, jëf ji nga xam ne GTSC def nañ ko pour yombalal askan wi seen nag dem dika dikka wax na ne li nag mbégte ak kontante la si nag nag daal di am bu ñu sukkandiku si li nga xam ne euh, moo di daal euh, kàddoo moom sax euh, daal dina wax ne daal daanaka dem na fa bés te nag mu fa dem nag bi nga xamee ne juróom-ñaari waxtu si suba daal dina nag daal di tëgg te bi nga xamee ne dem na fa gis nag daal askan wi nag daal daanaka ñu ngee ñëw pour daal jël li nga xam ne moo daal seen ay nag daal ticket su ko defee nag daal ñu xamal leen tamit bés yi nga xam ne daal seen ay boss lañ fee woon ak war a nag daal di jógee ko bu ñu sukkandiku si li nga xam ne moo daal kàddoom ñi nga xam ne ñoo yore kilifteefu GTS yi nag wax nañ ni lii yëpp nag dañ ko def pour daal bañ askan mi nag daal euh, daal di dajaloo si seen i li nga xam ne moo di béréb yooyu nag wax na li nga xam ne moo di ticket si joxe tamit ay nag ticket nag la yu méngu ak li nga xam ne moo di daal euh, euh, jamono la loo xam ne daal kenn nag du ko mun a piraat bu ñu sukkandekoo daal si seen i li nga xam ne moo di kàddu lii dañ koy def nag pour rek yombalal askan wi nga xam ne ñoo bugg a dem julli ji seen nag dëkk yi li nga xam ne moo di daal cosaan yi pour rek daal ñu dem si rek jàmm ñibbi si waat si li nga xam ne moo di jàmm ñu weendi si beneen li nga xam ne moo di xibaar ab délégation wala ab gàngoor goo xam ne ñu ngi jógee ko si kuréel gi ñu xamee si Global Fund di kuréel gi nga xam ne ñooy faral di jàppale réewu Gambia si rek wàllub li nga xam ne moo di wérgu yarami askan wi ñi nga xam ne ñu ngànk kuréel googu jamono ji ñu ngi fii si biir réew mi di fi nag amal ab tukkib nemmeeku bettan daal seen nag biir tukkib nemmeeku boobu dem nañ nag daal nekk foofu si diwaanu Bansang naaw ne foofu it nag daal seen i koppar wala seen ndimbal nag dugg na si ne moo di béréb bu li nga xam ne moo di fajukaay boobu noonu si nga xam ne daal dem nañ foofu si rek daal diwaanu li nga xam ne moo di daal euh, Bansang nag daal nemmeeku nañ daal lépp loo xam ne daal dugal nañ ko fa daal teg nañ si li nga xam ne moo di daal seen nag daal ay boot keroog daal euh, talaata nag lañ fa nag daal di dem euh, wala sax keroog wala si nag daal di li nga xam ne euh, moo di daal béréb bu faju kaay boobu nu gannaaw bi nga na liggéey yu am solo yoo xam ne ñoom Global Fund daal dinañ ko def si li nga xam ne moo di hôpital bokk na si daal di nag gi jógee ko si Global Fund bi ñu yegee si béréb bu faju kaay bu kiñ xamee si Ada Faye yore na mbal tànk bi xamee si ci financial special euh, officer euh, global forum moom nag nga xam ne mooy head of delegation wala moo jiite gàngoor bi moom nag daal dina euh, wax ne nag daal mbégteel ak kontaante la bi nga xamee ne dem nañ foofu si diwaanu Bansang hospital si bérébu fajukaay bi gisal seen bopp li nga xam ne moo di daal liggéey yu am solo yi nga xam ne def nañ ko si li nga xam ne moo di daal bérébu fajukaay boobu noonu mu nag daal di wax ne daanaka nag daal si rek daal ay at nag yu ñu weesu yëpp nag daal am na daal ay mbir nag yu bëree bëri yoo xam ne daal ñu ko doon amal si rek daal bérébu fajukaay jumtukaay boobu docteur Masirending Njie nga xam ne moom mooy chief executive officer bu Bansang General Hospital moom nag daal di raw daal daanaka bi nga xam ne daal defaral nañ leen loolu ñu xamee si oxygène plan foofu si diwaanu li nga xam ne moo di Bansang ab mbir na moo xam ne daal eh, dimbali na bérébu fajukaay bi gannaaw bi nga xam ne eh, daanaka nag daal dinañuy faral eh, di nag defar lu rek tollu daal juróom-ñaari téeméer ñaar fukk ak benn si rek loolu ñu xamee si oxygène cylindres daal di kon nag daal sax surtout ak yeneen li nga xam ne moo di bérébu fajukaay si nekk si biir réew mi bokk na si diwaanu ban Basse Farafeñe Buyam Kanifing General Hospital ak sax li nga xam ne moo di bérébu fajukaay bi ñu xamee si Edward Francis Small Teaching Hospital mu sax daal di wax ne li nga xam ne moo daal Bansang daanaka daal di nañ jëfandikoo lu ëpp téeméer si loolu ñu xamee si rek daal euh, cylindres si euh, li nga xam ne moo di daal bi nga xamee nag daal li nga xam ne moo di nag daal euh, plante boobu wala cylindres plante boobu nag daal wala oxygène plants bi amal nañ ko foofu si rek diwaanu li nga xam ne moo di Bansang bu ñu sukkandikoo si rek li nga xam ne moo di kàddoom Deborah Assanti Loser nga xam ne moom mooy portfolio manager foofu si Global Fund moom nag daal di wan a wax kontante la nag daal daal di am euh, bi nga xamee daal euh, dem nañ nemmeeku ci li nga xam ne moo di bérébu fajukaay ba wute nag daal euh, li nga xam ne moo di nag daal ñi yore kilifte fu bérébu fajukaay ba wute daanaka seen nag liggéey ñu ngi koy nag daal jaarale si li nga xam ne moo di yoon ba tax wax na ne li nga xam ne moo di oxygène plan bi nga xam ne moom lañ taxawal foofu si diwaanu li nga xam ne moo di daal bansang ab nag mbir la moo xam ne dimbali na bérébu fajukaay ba sax daal li nga xam ne moo di mbir moomu nag daal yeneen si li nga xam ne moo di ay bérébu fajukaay sa daal ñu ngi say nag daal di daal njëriñoo docteur Mamadou Ty Niasse nga xam ne moom mooy acting director health and services moom nag daal dina wone Bansang Hospital nag euh, daanaka euh, laata ñu doon am oxygène plan bi nag daal lu ñu daan faral di jëfandikoo si li nga xam ne moo di oxygène daal daanaka nag daal lañ ci daal dugal koppar gu bëree bëri gannaaw bi nga xamee daal daanaka benn oxygène bu nekk danañ ko danañ ko daan amee ñaari junne ak juróomi téeméer si koppari li nga xam ne moo di dalaset ak wax ne loolu nag daal fekk paas bi nag daal bokkut seen daal jamono jooju ñu ngi ko daan jëlee si rek diwaanu Banjul fi ñu xamee si rek daal Banjul oxygène fa lañ ko daan jëlee yóbbu ko si di Bansang wax ne ab koppar nag gu jéggi dayoo lañ ci daan faral di jëfandikoo waaye nag wax na ne bi nga xam ne daal am nañ oxygène plan bi léegi nag daal daanaka coono googu yëpp nag daal tegge toogee rek teggeeku na seeni li nga xam ne moo di kaw ki nga xamee wala ñi nga xam ne ñoo di global fund delegation bi ñoom it bi ñu jógee si bérébu fajukaay bu ñu xamee si Bansang hospital dem nañ si li nga xam ne moo di biir askan wi fa si diwaanu Bansang nag siqa waxtaan ak li nga xam ne moo daal askan wi gannaaw bi nga xamee ne ñoom askan wi tamit nag daal am nañ njëriñ pour rek daal ñu gën leen a yee si li nga xam ne moo di xeetu feebar bu si mel ni tuberculose malaria HIV and AIDS ak yeneen si li nga xam ne moo di ay feebar yoo xam dinañ dinay faral di nag daal indil jafe-jafe li nga xam ne moo di daal askan ba tax na ñoom kilifa yi nga xam ne ñu jógee ko si global forum nag daal seq nañu waxtaan ak li nga xam ne moo askan wi nga xam ne ñoo dikkee foofu si diwaanu Banjang ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di xibaar gannaaw euh, juróom benni fan yoo xam ne ñu ngi woon si dëkk bu sell boobu di rek daal Medina ñoom ujaaj yi nga xam ne ñoo jógee ko fii si biir réew li nga xam ne moo di Gambie dem nag mottali ji seen euh, juróomeelu ponk li nga xam ne moo di islam ñoom nag keroog àjjuma daal utali nañ diwaanu li nga xam ne moo daal Màkka euh, wax nañ daal boobu nag bi nga xam ne daal dem nañ fa am nañ amal nañ seen nag tawaaf bu njëkk si li nga xam ne moo di daal Kaaba gi daal dinañ tamit amal seen nag daw joo xam ne def nañ ko diggante li nga xam ne moo daal Marwa ñoom ñi nga xam ne ñooy ujaay ji jógee ko fii si réew Gambie bi ñu jógee ko si rek Medina ñu ngi fa nag jógee ko euh, li nga xam ne moo daal ajuma daanaka euh, ñetti waxtu yi si bëccëg lañ jógee ko euh, si ñetti waxtu yi si digg bëccëg foofu si Saudi Arabie lañ fa nag daal di jógee ko daanaka am na ñetti waxtu si li nga xam ne moo di yoon bi laata sax daal ñuy nag yegg si li nga xam ne moo di daal diwaanu li nga xam ne moo daal màkk waaye nag bi nga xam ne nag yegg nañ fa daanaka nag ñoom mariage yëpp nag daal ñoo nag nuroo li nga xam ne moom lañ sol daanaka ñoom ñëpp nag daal seen ay armal lañ sol armal yu weex lañ nag daal di sor loolu nag daal li moo firndeel moo nag daal béréb la boo xam ne daal daanaka nag daal duñ xam ñi ñàkk ak ñi nga xam ne ñoo nag daal di am biñ fa jógee ñoom nag dem nañ fi ñu si suul Hulayfa dem nañ fa tamit nga xam ne daal daanaka lu toll si fukk ak benn kilomètre la digganteem ak diwaanu li nga xam ne moo di daal Medina foofu it bi ñu fa demee julli nañ seen nag ñaari rakk ñoom ñi nga xam ne ñëw di daal ujaaci ñoom ñi nga xam ne ñoo di ujaaci bi ñu eggee foofu si diwaanu li nga xam ne moo di daal màkk dem nañ seen dalluwaay bi ñu xamee si Manarat hôtel te si bi nga xamee ne juróom ñeneenti waxtu yi si suba keroog samedi jot na nag daal ñoom ujaaci daanaka nag daal daal dinañ nag dajaloo amal nag seen tawaaf gu njëkka daal di woor li nga xam ne moo daal euh, kaaba gi daal di tamit euh, dem nag daal si rek euh, masjid haram foofu yi nag daal dem nañ fa ñoom ñi nga xam ne ñoo di daal ujaa ci nag daal ñu nag wëyandiite nag amal li nga xam ne moo di daal seen nag daal ab cant joo xam ne ñu ngi koy jëmale si rek yàlla suñu daal borom ñoom ñi nga xam ne ñoo di ujaa bi ñuy jógee si seen li nga xam ne moo di tawaaf joo xam ne amal nañ ko si li nga xam ne moo di daal kaaba gi dem nañ daal di amal seen ab daw diggante safa ak li nga xam ne moo di daal marwa ab nag dox la joo xam ne Sénégal dinañ koy dox juróom-ñaari yoon diggante ñaari li nga xam ne moo di béréb yooyu di rek safa ak daal marwa wax nañu daal béréb la boo xam ne yonent yàlla ibrahim euh, ki nga xam ne moo di soxnaam siñ xamee si hajara moom nag daal euh, bi nga xam ne daal euh, borom kiram bi di rek yonent yàlla ibrahim bàyyi na ko foofu nag daal moom soxna si di rek daal hajara daw yooyu nga xam ne mu ngi ko doon daw diggante safa ak marwa lu nag daal la ujaa ci tamit di nag daal di bamtuwaat si rek ni nga xam ne noonu la ko soxna su tedd soosu di rek daal hajara doon nag daal di defee wax nañ si rek béréb boobu sax daal si la nag teenu zam-zam bi sax daal di euh, nekk mu di ab teen joo xam ne mun nañoo wax ne mu ngi nag bale si rek barke euh, ñi nga xam ne ñoo di nit ñu nag daal tedd ñooyu ñoom ujaa ci nag bi nga xam ne daw nañ diggante Safa ak daal Marwa daal dinañ tamit amal nag seen i nag daal li nga xam ne moo di daal ay ñaan ñoom ñi nga xam ne ñoo di nag daal ujaa ci nag daal wax nañu daal euh, fi mu nekk daal dinañ xaar be fukki fan yeeg ñeneen si weeru li nga xam ne moo di daal juun nga xam ne nag daal mooy war a nekk juróom-ñetteelu fan si rek weeru zul hijja euh, si la ñu nag daal di euh, dem fi xamee rek daal si rek daal min daal di nag tàmbali li nga xam ne moo di xaj gi dëgg dëgg ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di daal xibaar gannaaw bi nga xam ne ñu ngi waajal xew-xew bu mag boobu di iidul adha wala rek daal tobaski waral na yenn si ay soxna yoo xam ne ay nag jaaykat lañ yoo xam ne ñu ngi jaay uh, si rek daal marché uh, uh, Serekunda ñoom nag daal daal dinañ nak daal wax ne daal li nga xam ne moo di wanteer ji nga xam ne ñu ngi koy nag nemmeeku bu fekkee ne daal façon yi xew-xew yi nag mu ngi nag di jege daanaka nag daal yëgaguñ ko suñu sukkandiku daal si rek yenn si li nga xam ne moo di ay soxna yoo xam ne seq nañ waxtaan ak télévision bu mag bi ñu xamee rek daal si rek daal QTV ñoom nag daal dinañ sàkku si li nga xam ne di daal euh, kilifa yi ñu nag daal di leen ko nag daal yombalal ñu utal leen ay béréb nag daal yoo xam ne dinañ fa nag daal mën a amale seen li nga ne moo di daal ab nag daal wanteer kenn si li nga xam ne moo di daal soxna yi Fatou Sakho nga xam ne moom ab vendo la wala jaaykat la foofu si rek daal marché euh, Serekunda wax na ne li nga xam ne moo di daal euh, toxal bi nga xam ne moom lañ leen nag daal di toxal wala niñ leen di toxalee xam ne moo daal euh, wanteer gi mu nag wax ne daanaka li nga xam ne moo di euh, takkader yi daal daanaka fuñ toog ñu nag daal di leen fan nag daal di jëlee bétan daal li moo sàkku daal mooy nguur gi daal jàppale leen si rek daal diir gi ñu nag daal di leen bàyyi ñu amal li nga xam ne moo di daal seen i ab wanteer ñoom nag wax nañ sax lii nag daal bëgg nañ nag njiiti réew mi daal di ko nag daal di euh, yéeg wax ne daal buñ leen ko nag daal defalee daanaka nag ñoom dina am lu bari loo xam ne dinañ ko nag daal gis seen bopp si rek wàllu li nga xam ne moo di wanteer ñi nga xam ne ñu ngi koy amal si jamono ji soose Keita nga xam ne moom it ab vendo la wala jaaykat la foofu si rek daal marché Serekunda wax na ne li nga xam ne bi nga xam ne moom lañ leen di toxal ne daal wanteer bi dañ ko daan amal nag daal daanaka bi yoon euh, mun a guñ koo nag daal di amal li ko waral euh, daanaka nag daal euh, duñ leen bàyyi mukk nag daal ñu toog si li nga xam ne moo di benn li nga xam ne moo daal béréb te wax na ne loolu ab jafe-jafe leen nag daal di indil ba tax wax na daal wanteer gi loolu la ñu dundalee seen i njaboot loolu sax daal la ñu fayalee seen ay doom euh, seen li nga xam ne moo di seen nag daal njàng bu ñu sukkandeku si li nga xam ne euh, moo di daal euh, kaddu yi moom ki ñu xame si rek daal soose keeta keneen koo xam ne feelu na ko si kàddoom yooyu Fatou Thiam moom i nag daal di beneen vendo wala beneen jaaykat foofu si rek daal marché Serekunda moom nag daal dina wax ne daal daanaka li nga xam ne moo di daal béréb bi nga xam ne daal daanaka dinañ fay faral di fa nag daal di jaayee mel na ni bi yoon nag daal bàyyuñ leen si seen teeyu li nga xam ne moo di daal bakkan muy sàkku si li nga xam ne moo di nguur gi ñu taxaw li nga xam ne moo di soxna yi nga xam ne ñu ngi daan seen doole gannaaw bi nga xam ne daal wax nañu daal ñoom soxna yi daal daanaka ñoom ñu ëpp si ñi nga xam ne ñoo woote li nga xam ne moo di nguur gi fi nekk si li nga xam ne moo di jamono ji bett daal li ñoo sàkku daal mooy njiiti réew mi nag wax ak li nga xam ne moo di ay nag nitam ñu bàyyi leen ñoom soxna yi ñu mun a amal seen ab wanteer keneen koo xam ne moom nag kilifa la si rek daal euh, diwaanu Kanifing municipal council nga xam ne sax lu aju si wàllu marché yi nekk foofu si Kanifing municipal council moo koy saytu Modou E Ndiaye noonu lay wuyoo moom nag daal dina wax ne naam euh, bëgg nañoo bàyyi lool ñi nga xam ne ñoo di jaaykat yi nag daal ñu bàyyi leen ñu nag daal di jaay waaye nag daanaka ni mbir yi di demee euh, moo tax nag daal daanaka bi yoon nag daal ni nga xam daal noonu la mbir yi daan demee nag du ko demee bu ñu sukkandiku si li nga xam ne moo di kàddo mu ne naam am na daal ab délégation ab gàngoor goo xam ne jóge ko woon nañ ci rek marché Serekunda ñëw si nag seet si eh, kilifa yi nga xam ne eh, ñoo ngànk li nga xam ne moo daal eh, KMC waaye nag daal dina wane daanaka dafa am nag ay sarta yi xam ne moom nag lañ tëral ba nag daal noppi te nag daal sarta yooyu nag daal munuñ see nag daal di dellu li nga xam ne moo di gannaaw gannaaw bi nga xam ne daal dafa am nag ay béréb yoo xam ne naam dinañ fa mun a bàyyi nit ñi ñu di fa jaay waaye nag am na yenn béréb yoo xam ne munuñ faa bàyyi kenn nag daal mu di fa jaay dafa gàllankoor li nga xam ne moo di daal dem ak gi bu ñu sukkandekoo si li nga xam ne moo di kàddu yi moom ki ñu xamee si Modou E Ndiaye si xibaar gu uh, mujj gi gannaaw bi nga xam ne jamono ji kër googu ñu xamee si Jibos nga xam ne ñoom lañ sas pour rek daal ñuy nag daal wër si biir réew mi pour rek daal compter li nga xam ne moo di limu. li nga xam ne moo di askan wi yenn si seen i ay ndaw yoo xam ne ñoom lañ sant li nga xam ne moo di liggéey euh, boobu noonu nag daal ñoom nag daal seq nañ waxtaan ak télévision bu mag bi ñu xamee si rek daal QTV surtout nag daal ñoom ñi nga xam ne ñooy amal liggéey bi foofu si rek daal North Bank Region ñoom nag daal wax nañ Euh, ne daal naam liggéey ji nag euh, mu ngi dox ni mu war a nag daal doxee waaye nag terewut tamit ñu ngi nag jànkuwanteel ak li nga xam ne moo di ay jafe-jafe bokk na si ki nga xam ne bokk si ñi nga xam ne daal seqana waxtaan ak télévision bu mag bi ñu xamee si QTV Sékou Touré noonu lay wuyoo supervisor la si rek ñi nga xam ne ñooy amal euh, mbir euh, mbirum compté wala daal euh, dina daal di lim li nga xam ne moo di askan wi moom nag daal dina wane daal naam li nga xam ne moo di daal mbir mi biñ ko tàmbaleek léegi amuñ nag jafe-jafe yu gën a fees waaye nag daal wax na ne daanaka ñu ngi dugg si biir li nga xam ne moo di askan wi pour rek xamal leen ñoom li leen nag daal di tax a jóg waaye nag léegi-léeg askan wi nag daal indi leen li nga xam ne moo di jafe maanaam duñ leen di nag daal nangoo nag daal di yaatal seen wàllub li nga xam ne moo di daal euh, liggéey euh, moom sax daal dina wone daal si rek liggéey bi nga xam ne mu ko amal daanaka dem na fi ñu xamee si saare euh, saare Kunda Euh, nekk fi ñu xamee si sabax sànjal bi fa nag daal euh, deme fekk na fa nag daal ay nag euh, ndawam yoo xam ne daal daal xamal nañ ko nag daal daanaka seen nag liggéey ñu ngi koy amalee si anam yi nga xam ne noonu la daal di mucc ayib maa ñi ma diba nga xam ne moom nit nag ab supervisor la teewal jibo suufu si sabax sànjal moom it nag daal dina wane daal daanaka liggéey liggéey gi ñu ngi koy amal ni nga xam ne noonu lañ ko war a daal di amalee xamale daal ay nag naataangoom xamal nañ ko nag daal amaguñ nag euh, benn jafe-jafe boo xam ne jànkuwantal nañ ko seen wàllub li nga xam ne moo di liggéey Lamine Diba nga xam ne moom it nag euh, nekk si rek euh, jiboos foofu si diwaanu li nga xam ne moo di daal kerewaan moom it nag daal dina wax ne daanaka nag euh, bi mu tàmbalee liggéey bi ak léegi moom ak li nga xam ne moo di daal ay nag daal euh, ñu ñam euh, daanaka nag daal amut nag benn jafe-jafe boo xam ne daal ñu ngi koy nag daal di jànkuwanteel moom nag daal dina wane daal foofu si rek daal diwaanu li nga xam ne moo di daal North Bank Region daanaka am na lu toll woon si rek ñetti téeméer juróom fukk ak ñeneenti nit ñoo xam ne ñoom nag lañ jëloon tàggat leen pour daal ñu amay li nga xam ne moo daal liggéey bi waaye nag daal si rek daal li nga xam ne moo di njeexteel li lim boobu nag dañ ko nag daal di nag wàññi euh, bu euh, baax a baax wax nag la loolu nag daal tax na daanaka liggéey gi euh, nag yéex na lool suñu sukkandekoo si li nga xam ne moo di daal kàddoom li ko nag sabab nag mooy wàññi bi nga xam ne moom nag lañ wàññi ñenn si ñi nga xam ne ñoom nag lañ jàpp ne tàggat bi nga xam ne moom lañ leen doon tàggat nag daal nag daanaka amuñ ci nag daal li nga xam ne moo daal xarañteef ñi nag daal di leen wàññi nag loolu it nag daal taax na liggéey gi nag daal yéex lool si rek daal li nga xam ne moo di waññi wala conté compte bi nga xam ne ñoom waa Djibos foofu si rek North Bank Region ñu ngi koy nag daal di amal bu ñu sukkandekoo daal si seen i kaddu ñoom ñii nag daal ñu ngi doon seq waxtaan ak télévision bu mag bi ñu xamee si QTV.